الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصر الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw ba mbokk bi di sunu xutba mooy asbaabul wuquu fi ibdaai wa taxazubi sababu yi tax doomu aadama di sos ci diine ak di ci ut parti wala mu ci ut péete te ci suñu dund li tax ñuy dund bidaa sabab yi daa bëri li tax ñuy ëpp ci nit ñu bëgg bidaa cause yi dafa bëri sabab yu bëri moo tax dana néew ci ñun ku dundul bidaa wala bëggoo bidaa daanaka sax réew mi danañ dem ba nga ne est-ce que réew mi xam nañ sunna est-ce que réew mi xam nañ tawxiid est-ce que réew mi xam nañ yàlla est-ce que réew mi xam nañ yeneen ci nit ñu bëgg bidaa moo tax alquran di wax ne nit ñi dañoo bëgg bidaa ba ëllëg yowmal xiyaam noonu nit ñi di dekkee génn ci bàmmeel yi ñëpp def direct jëm ardul mahshara moom lu yàlla di ko nettalee nga xam ne ñëpp dañuy nekk benn yoon kenn du deltu ginnaaw noonu la nit ñi mel ci bidaa waaye sabab yi yi tax nit ñi bëgg bidaa sabab yi ba ca jiitu mooy aljahl mooy réer aljahl bi charillah réere charia yàlla nit bu dundul charia rek sos ci diine nit bu dundul charia rek pour parti ci diine pour fu mu bokk fi laa bokk man te nit suutee fu mu bokk rek duufal fi mu bokk ngandal ko réyal ko day guma gëlëm même ñooñu suñu nekkee ci njuumte sax moom dootul gis loolu parce que day wax foofu la bokk foofoo baax ñun ñooy dem aljanna ñi ci des safara lañ jëm ñi ci des liñ nekk baaxul
moo tax sos ci diine baaxul mbokk yi ci yàlla noonu yonent yi ñu contre li yonent yi indi mooy ñi wuteeg yonent yi ndax yonent yi yàllaa leen tànnoon yónni leen jox leen ay message ñu ñëw jàngale ko ba dem ñeneen ñi ñëw indi leneen seen ginnaaw te kenn yónniwu leen ñooñu ñooy noonu yonent yi ndax ñoom ñooy ñi yàq li yonent yi indiwul suñu borom subhanahu wa taala mu ne inna charra dawaab inda allah ñi gën a yiis ci daaba daaba mooy lépp luy dukkal lu am ruu di dund rek loolu daaba la doomu aadama sax daaba la doomu aadama daaba la ba gën a civilisé rek ci daaba yi waaye ci daaba yi la bokk ndax lépp luy duggal daaba la borom bi nee na ak summun bukmun mooy ñi nga xam ne dañoo dëx waaye dañoo muuma mu ne allazina laa yaaqiluun mooy ñi amul xel pourquoi amul xel mooy lu ñu jël rek dañ koy dugal ci diine lu ñu jël rek dañ naan ci la bokk fekk bokk ci lu ñu xalaat lu ñu leen wax rek dëgg na gëm nañ ko looloo tax bidaa bon ci diine mbokki jullit yi borom bi ne am taxsabu ann aksaruhum yasmaun aw yaaqilun yow muhammad ndax dangaa yaakaar ne ñii ngay waxal ñu ëpp ci ñoom danañ dégg wala am nañ xel ndax ku am xel dana am loo xam ne du ko def dana am loo xam ne du ci tukk ndax xel bi mooy tax day xalaat su xalaatee rek day xam ne lii du dëgg day xam ne lii bokk day xam ne lii warul nekk looloo tax du ci dugg borom bi nee na in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila am na ci ñoo xam ne sax ñoo gën a yées rabi àll yi al an'am jur yi am na ci mbindeef yi ci biir kër yi ci mbooloo yi borom bi nee na jur yi ci biir kër yi xar yeeg béy yeeg mbaam yi ak nag yi ñoo leen gën su doomu aadama demee ba rabu àll gën ko jur gën ko ulaa'ika kal an'aam bal hum adall lan moo ko waral yàlla nee na dama leen may ay xel bu ñu xalaat ma may leen ay nopp bu ñu dégg ma dafa leen ay bët bu ñu gis mais borom bi subhanahu wa taala ba muy ba muy continuer xas yi dafa ne bal hum adall ñu ñii sax ñoo gën a bon xar yi béy yi summa radadnaahu asfala saafiliin doomu aadama bu demee ba xel bi ko yàlla may nopp yi ko yàlla def muy dégg bët yi ko waroon yi mu waroon xoole xel bi mu waroon xalaate yëpp mu daal di koy bloqué loo ko wax rek mu ne dëgg la est-ce que dëgg la est-ce que dëgg la loolu doomu aadama boobu li yàlla wax mooy dëgg ulaa'ika kal an'aam ñoo xar yi ak béy yi ñoo yem waaye doomu nañu ñaareel bi ci sabab li tax doomu aadama bi sos wala muy bokk ci ay parti parti diine mooy albaxi wa zulm mooy bew réew ak mën a tooñ tey tey loolu moo am yu bëri ci ñun mbooloo yi ñuy daw di bokk dara waralu ko lu dul réewale ak wax waxu soxna léeg-léeg nga dégg ñu ne réew mii diw moo ko moom loolu réewale la xam nga ne li ngay wax du dëgg xam nga ne dëkk bi yàllaa ko moom innal arda liman innal arda liman lillah kon ki ne fii diw moo ko moom luy sabab mu wax ko reewande ak ko fi tooy al baqi wa zulm yàllaa moom ne innal arda lillah yurisuha man yasha yàllaa moom suuf si ku ko neex lay jonn yow yow mi naan diw moo moom fii ana diw moom ngay wax dee na bu yàgg moom moom asamaan dee na bàyyi ko fi nga ne moom moom suuf dee na bàyyi ko fi këram gii nga mu doon wax moo ko moom sax nga xam ne dañ ko defaroon titre foncier wala ñu defar ko fenn dëkk bi wala ñu defar ko bàyyi dee na ba ñu jaay ko keneen ñëw jël kër gi wiite ko ci beneen xitro kon kay moom moom fi dara jabaram bu fi bàyyi woon sax keneen tàkk na ko alal bu bàyyi woon sax seetloo na ko tey su del si waatoon ci àdduna suñ ko hébergé wul bu am fu mu fanaan kon kooku lan la fi moom kon yow lu tax nga taxaw naan diw moo fi moom wala diw mooy sangam wala diw mooy wala diw mooy xutbu zaman wala diw moo moo wala lu tax nga taxaw di wax loolu mooy albari wa zulm mooy réew ak bew doomu aadama nag bu bewee rek day waar kallaa inna al insana la yatgha mata an raa istaghnaa doomu aadama bu amee ak tuuti rek day dem doomu aadama su poosam amee dara wala mu wér wala mu am doole wala mu am kàttan wala mu takk ndomba tànn da ngay gis mu réew da ngay gis mu beew dootul faale kenn dootul dégg dootul gis lan lay gis ndombu tànk yi darajaam martabaam am-amam maqaamaam xam-xamam dooleem kàttanam pexeem loolu rek la doomu aadama di gis parce que lu tax am diine ixwatal iman ñetteel bi tax doomu aadama di sos ci diine wala muy bokk ci parti mbooloo mooy alxulu fi diin mooy ëppal ci diine ëppal ñaata yoon la yàlla wax ne bu leen ëppal ci diine ci alquran ñaata aaya la te ëppal boobu nag ñaari ëppal la ëppal ci ay nit alxulu fi l asxaas kal ambiya wa saalihin wal aima ëppal ba ëppal ci yonent yi loolu moo daloon waa nasaraan yi ñu ne Isa au lieu ñu ne jaamu yàlla la ñu ne doomu yàlla ndax ëppal ëppal ba ne yaayam yàlla la ëppal ba ne moom yàlla la ñu utal yàlla ñett yàlla mu ne ñi ne yàlla ñett la wet dinañu yàlla laqad kafara allazina qaalu inna allaha thalisu salasa ca yàlla ne leen yéen bu leen ëppal ci seen diini na ngeen xam ne Isa mi du yàlla du doomu yàlla yaayam du yàlla waaye mbokk yi ndax lañu waxoon Isa ne Isa doomu yàlla la ñun jullit ñi tey amuñu ko wax ci ñun waxuma sax mi ne diw doomu yàlla la waaye da ngay gis mi ne diw yàlla la diw yàlla la waaw yaa ngi nii toog yaay yàlla allahu akbar mooy li doon wax léegi ëppal jay jay nit ba ne ko yaay yàlla loolu moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da cee mujj ndax lan moom di ko yàlla yónnee yàlla rek la wone wone mu boppam moo tax mu mucc ci keroog ba gaa yi ñëwee di ko jay naan ko anta sayyiduna wabnu sayyidina waa waa rek dafa teel a dakk dafa teel a dakk wax jooju mu ne leen laa taqtuluni kama qatalati nasara ibnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluh bu leen ma jay jayaate jayaate loolu moo am de jayaate jay sa sëriñ jay sa kilifa ne ko yaay sàngam yaay jiw yow yaa raw malaaka yi yow yaay xutbu zaman yaa teye jant bi yaa teye weer bi yaa tax muy taw yaa tax yaa tax benn waay fii ci biir doole bi dafa accident yàlla def dara taw mu ñëw mu siyaare si sëriñam mu ne sëriñ bi yow doo nit yow ngand nga yow yaa raw malaaka yi yow yonent bi sax doo seen morom mu ne lu xew ne dama accidenté woo la rek dara taw man ñi ma nekkaloon ñu dee man xoosuma sax ndax dama laa woo au lieu mu ne ko déedéet yàlla tax nga mucc mu noppi moom sëriñ bi mu dem tukki muy ñëwaat fii ci biir doore bii muy wàcc ci oto bi oto bi mu droité woon baaxul mu génne tànk bi beneen oto ñëw tànc ko tànk bi dàkk ci saa seen tànk bi dàkk boobu war di nii di yëngatu waaw léegi kooku moom moom mënul musal keneen moom mënul musal boppam ndax xel nag mun a lool moom mun na musal keneen ba dara ko dal waaye moom munu musal boppam ndax xel nangu na loolu xel nanguwul loolu baatu bu sey laa yuti ku amul doo maye kon kooku waroon na xam ne li mu ko doon wax keroog naan ko yaay yàlla yaa ma téye yaa tax deewuma yaa tax nangam yàlla wan na ko ne du dëkk ndax kii mu yaakaaroon léegi benn tànk la amatul ñaari tànk ci xotal imaan ëppal ci diine dañu koo tere ëppal ci nit ñi comme yonent yi kenn du ëppal ci ñoom ay jaami yàlla lañ ay yonent yàlla lañ ni nit ñi juddoo lañu juddoo dañoo am ay ndey am ay baay amul kenn ci ñoom ku yàlla cëppeel kaw asamaan amul kenn ku génnee ci géej kenn moo ci amul baay te mooy Isaa te yàlla wax na ko inna masala Isaa inda allah kamathali aadam xalaqahu min turaab ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين kooku kese ñeneen ñëpp am nañu ndey ak baay dañ leen a ëpp ni ñuy ëppee nit ñi jur leen ni ñuy juree nit ñi ay jaam lañ in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmani abda ku nekk kaw asamaan malaaka la ak loo mën a nekk ci suuf si ginne nga wala nit nga jaam nga ci kanamu yàlla doo dara jaam nga anta abd war nu abd war nu ama ixwaan yi nit ñu ak yonent yi kenn waru ëppal ci ñoom waaye asaal yi lañu baax yi tey booy xool réew mii daanaka nga bañ a bokk sax ci nit ñi baax ñi ñuy lim moo gën nga nekk nit ordinaire pourquoi ab sénégalais bu ñu ko xasee wax diw nii nangam rek commencé na ko xëccal ay martaba commencé na ko waxal yu mu am kii nelaw guddi kii arsu lay fanaan kii day gis yàlla kii day wax ak yàlla kii sax suuf jibril ñëw ci moom kii kii kii kii kii ñu commencé laa wax loo xamante ne maa anzala allahu bi amin sultaan dara leenu ci dara wala yàlla nattoo nga commencé gis sa bopp commencé xëcc ci daraja commencé commencé Iblis gasal la bunt nga daal di jaar noonu daal dem jahannama ixwaan yi wala imma njiit yi ñëpp ci yem nit lu mu am daraja kenn weddi bu ko tilka rusul faddalna baadum ala baad ñoom yonent yi sax dañoo ëppante ay martaba minhum man kallama Allah wa rafaa baadum darajat wa aatayna Isa bnu Maryam al bayinat ma même yonent yi dañoo ëppante ay daraja yonent yi cent vingt quatre mille la soo jàngee alquran vingt cinq la ci yàlla tànn wax seen tur ana ñeneen ñi parce que ñii ñoo leen ëpp martaba vingt cinq yi yàlla tànn ci sànq cinq tuddee leen ulul azmi mina rasul cinq yi yàlla tànn kenn muy muhammad parce que moo leen raw moo leen ëpp pour daraja mooy imaamul ambiya wal mursalin kon dañoo rawante même nit ñi noonu lañ mel mais tekkiwul nag daraja boo am wala xam-xam boo am wala maqaama bu am dan laa war a teggi nag yóbbu la rek koo xam ne yow it booba ndax anzilu naasa manaasilahum jibril sa defam fu mu yem keroog ba mu ànd ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca rañaan nga ñuy génn asamaan yi di génn asamaan yi ba asamaan yi juróom-ñaari jeex jibril war a yóbbu yonent bi ci yàlla jibril dafa ñëw ba ci yenn place yi sidratal muntaha عندها جنة المأوى إذ يخشى السجرة ما يخشى dafa ne ko fii nag mënatumaa dem man fii laa yem mënatumaa passé wa maa minnaa illaa lahu maqaamun ma'luum kenn ku nekk ci ñun am na fu mu yem man Jibril li may foor foor foor nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala tàgg na ma si quwwatin zil arsh makiinin mutaa'in thumma amiin terewul nag fii laa mën a yem mënatumaa passé yonent bi ne ko nan laa def mu ne ko demal ci essence rek ba essence rek bi la nga yëg ci yóbbu la ci sa borom anzilu naasa manaasilahum ku nekk dafa am fooye mais Sénégal moom amul ku nekk rek da ngay guddi bopp ni egg ci yàlla direct yenn saa yi sax nga ne da ngay jëjjëf yàlla na toog danañ yàlla taxaw ixwatal iman ëppal ci nit ñi waaye ëppal ci diine ëppal suñu diine ji mu bi kenn amul diine bi daal diine bi lépp ci la bokk tout amul lu ñu bàyyi yàlla wax mooy lu yonent wax nekkul nit ñi lu ñu xalaat rek dugal ko ci diine bi ëppal ci yonent yi ci nit ñu baax ñi ci ay may ci saalihiin yi waaye ci diine bi diine bi lépp ci la bokk amul tey benn tomb booy jël ci diine lu dul dugal nañ ci lu ci bokkut ñeenteel mooy attakaalif ala dunia mooy yenu àdduna nit bu yenu àdduna rek bëgg bi daal wala bi nga chaque jour ñuy sos chaque jour ñuy sos buntu yëpp tijjeeku na ndax lan yenu àdduna ndax lépp rek nañ ko dugal ci diine bi lépp bokk na na lépp ñëw ixwatal imaan ku yàlla baaxee mooy koo xam ne du sos mais day toog ku yàlla baaxee mooy koo xam ne day déglu borom xam-xam yi chaque jour boo wax ne même laxdari bi bu ñu ko déggoon mu xaddima bi rek kon dañuy nekk ay jullit yu wér a wér a wér laxdari su fekkoon ne ñun ki yëpp Sénégal moom dong lañ jàng ñu comprendre mu xaddima bi waxuma fiq bi tawxiid bi aqida bi ñun ñëpp dañuy nekk ay jullit yu wér dangay jàng ñu ne la wala yahillu lahu an yafala filan hatta ya'lamu wallahi fii daganul ci yow nga def dara lu dul loolu ngay def xam nga lu ci yàlla wax dégg nga kon téye nañu amoo droit def dara lu dul li ngay def balaa nga koy def danga ne waa lii moom julli àjjuma gi may julli ji àjjuma pourquoi ñu ne la julli àjjuma farata nga ne ah nu mu nekkee farata ñu ne yàllaa ko wax ci alquran fan la ko wax ñu ne suratul jumaa ban aaya ñu ne la yaa ayyuha allazina amanu ida nudiya lissolaa min yawmil jumaa fasaw ila zikrillah wa dharul bay' su ñu noddee bisu àjjuma yéen ñi gëm yàlla bàyyi na li ngeen def bàyyi na liggéey su une heure et demie jotatee liggéey araam na ci jullit liggéey araam na ci jullit jour vendredi suñu noddee nodd bu njëkk une heure et quart liggéey araam na wasaru bàyyi bàyyi leen lépp loolu la yàlla wax tëj leen commerce yi wàcc leen dem leen ngeen julli ci juma julli juma farata la waa ji wax la loolu kon nga xam ne loolu farata la yàlla moo la ko sant kon loolu mu la wax rek wala yahilu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi amoo droit def dara lu nga xam atte yàlla nga ne ah man de wax dëgg yàlla damaa jàngul mu ne la wa yas'al al ulama laajal borom xam-xam gis nga xaw ma jàngul kii la laajal amoo droit def kon lu nga laaj yan borom xam-xam mu ne la borom xam-xam yi jàngale sunna gis nga ñooñu ngay laaj kon kay leer na kon la moo tax nu mu sànq fii doo jàng doo laaj soo juumee sax ñu wax la nga mel am na ñu toog mun nañ maa seede benn jàkk bu ñuy jullee fajar yenn saa yi su ma nekkul fii ma seetlu ne jàkka ji sàppe bi bu fees première sàppe bu fees ndey door ak càmmoñ ay nit am na benn paa boo xam ne seetlu naa ko ñetti fan lundi mardi mercredi lépp ci ginnaaw lay julli moom kenn ci ñoom fan yee passé ñu sëlmal rek ba jóg taxaw ne asalaamaaleykum wa rahmatullah li may wax ni maa ngi ci jéglu waaye lu baax rek laa ci nam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne laa salaata li mun faridin xalfa saf su sàppe feesoo bu julli ci ginnaaw yow kenn yonent bi nee na amoo julli maa ngi koy fàttaliwaat fii léeg-léeg nga gis kuy julli ci jumaa romb benn garab kër gi neex rek mu la si jaadaan toog amoo julli de la salaata li mun faridin xalfa saf yàlla yónni woon ci ñun nee na képp ku duggul ci sàppe sàppe bi bu feesul nga ber sa sàppe bopp yonent bi nee na amoo julli ma wax loolu ne leen man man ci jiw mu daal di pare gars yi daal di bëgg indi histoire loolu jar na histoire sax mais du ñu jàng du ñu laaj suñ ñu waxee ñu mel di ngand ngand di jaay ay maxaama waaw man damaa ñëw nii xaw a kii xaw a lële jullit suñ la waxee dara rek damaa war a wax samina wa ataana yeneen bi fekk na benn waaye bu takk lam or wala jaara or bi mu ko nuyee waa ji fay ko mu xam ne kii jullit la yonent bi ne cas or bi xëcc mu dëgër mu bif ko ba deret ba loxo waa ji deretal mu ne ko walaw bitta wa hada fi yadi ma aflata abadan soo deewoon li nekk sa loxo doo texe mu sànni ko dañuy wax gaa yi ne waa ji foral yo- foral sa lam foral sa jaaro yonent bi dem na mu ne leen maazallah yonent lu tekki safara sama loxo ma koy takkaat yonent lu tekki safara sama loxo ma koy takkaat loolu mooy imaan loolu mooy ngëm julli soo xamul suñ la waxee da ngay nangu waaye jàngoo xamoo ñu wax la ngay ngand ngandlu di jaay histoire di jaay garabu boobu ngand wala man di ta- 30 ans maa ngi julli 50 ans maa ngi fii maa ngi wirdu nangam place bu nekk dem naa fa xeer lu mu yàgg-yàgg ci biir géej du nekk jën xeer lu mu yàgg-yàgg ci biir géej du nekk jën 50 ans ngay may ànd ak sëriñ bi waa ànd ak sëriñ bi te jàngoo tamit du tax nga nekk nga am nga nga xam li ngay def danañ yàlla woon dëkk wërsëgal ñu topp ko danañ yàlla woon neen wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله juróomeel ci li tax doomu aadama di sos nekk ci ay bidaa mooy al ijaabu bi nafs wala igtiraar yéen sa bopp ak wor yéen sa bopp dafa ne yow boo juum wala yow dañ laa war a topp war a topp wala yow loo def baax na loo def noonu la déedéet loolu mooy waru al ixtiraaru waru yaa ayyuha al insaan maa garraka bi rabbika al karim alladi xalaqaka fa sawwaak saadalak fi ay suuratin maa shaa rakabak yow doomu aadama la moo la nga bew tax nga waru al ixtiraar war sa bopp war ñun ñooy mbooloo sàngam ñun ëllëg yowmal xiyaam ñun ñooy dugg aljanna balaa kenn dugg ñun dañuy dugg ñun jox nañ ñu suñuy caabi ba pare ndax ñun nangam nangam yor ay sabar di tëgg ñun ku ñu àndal ki mu àndal lu ko neex laaj di fecc 10 heures ba minuit loolu musiba la ixwatal iman musiba la war sa bopp yéem sa bopp al ijaabu bi nafs parce que nangam parce que nangam parce que nangam wal ixtiraar waru yàlla waxoon na Moussa yaa Moussa laa taamal makri hatta tara nafsaka fil janna Moussa mu ne ko la bayka yaa rab mu ne ko bul wóoru sa bopp lu dul nga gis sa bopp biir aljanna bul yaakaar ne cexe nga li ngay rëy rëy rëy nekk ab yonent bokk ci ulul azmi mina rusul nga am maqaama yu rëy yàlla bàyyi ñëpp wax ak yow Moussa bul wóoru de ba nga gis sa bopp biir aljanna kon keneen waxi noppi ixwatal imaan beneen ba ca tegu mooy al arzu bi baad al xaq tatruku bi baadi yi dëgg ñëw dëgg bi nga jël ko di tànn waaw lii de moom baax na arrangé na ma léegi moo ko jël loolu mooy Sénégal gis dëgg tànn loolu la ci nekk diine bi ñoo nga tànn lu la nekk te waxoon nañu yaa ayyuhaa allaziina aamanu udxuluu fi silmi kaffa yéen ñi gëm yàlla diine jël leen lépp ñun ñu daal di xaaj diine bi ñaari sàmm afatu'minuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruuna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أسد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ndax da ngeen bëgg a xaaj diine bi ñaar ngeen jël lenn bàyyi lenn jël lenn bàyyi lenn loolu lañ def fii Sénégal jël li bàyyi lii loolu musiba la day tax doomu aadama di sos di dugg ci ay musiba beneen mooy taasimi kalaamil aadaai islam léeg-léeg nga gis noonu lislaam yi wax dara nga gis ay jullit yu yëngu dëgg la kay dëgg la waaw lii dëgg la fekk ñi ko wax ay noonu lislaam lañ bëgg a yàq lislaam dégg naa benn waay fan yii dégg naa ko muy xas imaam Alioune Badara Ndao waaw waaw yonent bi ne uskuru ma sa mahaasina mawtaakum uskuru mahaasina mawtaakum moom nit ki génn àdduna ba pare boo xam ne ñëpp a ko seedee lu baax. moom mu taxaw di wax ci lu bon parce que bokkul ak moom yoon xam nga lu rusu mooy ndaw si doon wax ak moom doon ko laaj mu ne ko wallaay gis nga kooku su amoon li mu bëgg kon yow fii nga toog ni doo fi toog di fi def bopp neen dégg nga wax ñëw ci kooku su amoon ci Sénégal lu ñu bëgg kon yow bi da ngay muuru allahu akbar kon waa Sénégal xoolaat leen seen bopp ci kufur ngeen nekk ku fi dee rek safara bi def ba moytu su fekkee ñun li yàlla wax ci alquran moom la ñuy gàllankoor muuraay kan moo ko santaane kan moo santaane nañu muur
ndax bu yàlla moo ko wax suuratul ahzab verset 59 yaa ayyuhan nabi qul li azwaajik wa banaatik wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabibihin zaalika adnaa an yu'rafna falaa yuzayna wa kaana Allaahu gafuuran rahiiman yàlla moo ne nañ muuru kan moo ne nañ muuru du yonent yàlla Muhammad almar'atu kulluhaa awra ma'al wajhi wal kaf yaa asma yow asma jigéen bu gisee baax tagalatul yaram bi yaramam di feeñ lu dul kanamam ak seen ko bu yonent moo ko wax kon loolu la ci maam Ali Badara Ndao indi lan la fiy jaay dafa indi lu bees li mu doon wax loolu la yàlla wax suñ ko nangoo loolu mooy dëkk suñ ko bañee loolu mooy dëkk ku ko dund boo dee am ngërëmal yàlla ku ko weddi boo dee dajeeg yàlla dafa war a leer nañ képp ku bañ sharia booy dee bu sabar waaye waa jooju loolu du metteel ci moom ndax ku xas yonent bi xas lislaam boo xasee jaamu yàlla nit ñi kenn waru laa wax dara ku taxaw ne yonent bi ndeyam gënu sama ndey ku taxaw ne lislaam moo tax ñoom jigéen soo waxee imaamu lislaam dara wàcc nga liggéey Sénégal lañ nekk El Hadj Umar waxoon na ko rahimahullah ku dee am nga ku la jooy ba mu des lislaam ku dee ci Sénégal am nga ku la jooy ba mu des lislaam lislaam moom amu fi ndey amu fi bàyyi ku nekk lu la neex nga wax lu la neex nga dund lu la neex nga woote mbooloo mu la neex nga sos saagawaate xasaate jaay doole ngand ngandulu waaye dee ngi ñëw dee ngi ñëw léegi suñu kanam mbiri daal di leer keroog bu ñu la dalalee ci kanamu jàkka ji imaam ne na waat war nu abt war nu amati ñu yéene la yóbbu ba amee rek gas ba mu xool dugal la yàlla mu ne tarakuka wa dafanu wa fi turaabi dafanu walaw sallu maaka ma nafaw walam yabqa laka illa ana wa ana al hayyu lazi la amut yëpp daal di leer fu daal di leer nañu keroog bu la nit ñi wanee ginnaaw ñëpp tàggu la ñu bàyyi dafa yow kenn mu niir ak munkar fekk si la ci biir bàmmeel ne la kum yaa abdallah jógal toog ماذا كنت تقول على هذا العبد محمد؟ ماذا كنت تقول على هذا العبد محمد؟ لا نروح محمد بإذن الإيمان اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مرة جميلة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله